Uh, bikum ay soxna jigéen yu wérut fa ñoo dem ci hôpital Louga ba ngir xam doom sage-femme ya kat ji leen dàq na kenn du leen rewele xanaa ngeen dem diwaanu Ndar ndax ñun fa ñuy geraw fa ñuy ñaawlu fa ñuy naqarlu suñ mbokk ñeenti sage-femme yoo xam ne fañ leen a jàpp tëj ca kaso ga ne yoo yaay fa ñoo càggante woon asu soxna ba mu faatu fii l'observateur moo ñu ko xamal Les Échos yéene kaay dëggal xibaar bi ne sage-femme yi fa ñoo jël dogal ne maternité ba wàllu rewele xamam doom duñ liggéey tey ko ba tax sax ña ngay sàkku ci Abdoulaye Diouf saar jëwri juñ dénk wàllu wér géeram Macky Sall dàq ko kajji football ca biti ndax lu ji njaaga mooy njaag enquête yi ne kaay ne xam ngeen lii lu garaaw la réewum Sénégal alxamisu tey ji jigéen ju bëgga xam doom see boo nga seeti foo xaw de hôpital yi boo demee kenn du la faale dafa ñuy garaw ñañuy duppee les internes ña ngay sàkku ci seen mbokk yi muy sage-femme yi ak waa hôpital yi ñu nekk nekk ci garaw fa ñoo war a li ñuy wax service minimum maanaam fexe ba xam ñoo xam moom danañ liggéey docteur yi na leen fexe ñu liggéey rek journée sans la ñuy amal alxamisu tey bi yëre docteur weex yi kenn du ko fi sol ngi faj fañuy garaw ña ngi ko waxee ci bés bi yéene kaay wal fajiri yéene kaay ne moo taxit Macky Sall ma ngay sàkku ñu defal ko rapport càmbaral ko hôpitalu a moom xam nga ci lu nekkam wàllu politique yow seetal fa dajale mboolem ay responsable am ca pale ba invité leen ci ab ndugu ndugu weeru koor woo xam ne façon lekk bu nekkan fa lekk yu saf lekk yu neex te bari lu toll fukki waxtu ña ngay lekk te lekkee mënta jeex kon ñii fañ doon noos le quotidien na ko boole waale ci lijjanti wote député yi di ñëw ndax looloo tere nelaw makki ba mu jëlee kàddu xam nga lu mu leen wax yéen laay waxal fa ñoo a ànd nekk benn bàyyi leen xiiroo ngaayoo bi su ko defee danañ am ndam waaye bu ñu fi nekkee di féewaloo fa ñuy néew baax na te suñ ëllëg ci nguur gii ci wote yi la aaju maanaam buñ dof dofloo ba opposition bi mbuqi ñu ñun ñëppay fori new kàddoom yaa ngi ci source ay yéene Macky Sall ne maa ngi mu mënta ñàkk ci assemblée te wàllu sàcc élection yi moom jaru sax nga di ko xalaat duñ ko nangu tudd fi xamee yaa doom yaa ngi ci l'observateur Dakar Times Sénégal ak réewu Afrique naka la ñuy ba sàcc ay élection moom mu jeex fi te ñaareel élection yi bu jaaree yoon maanaam buñ ko sàccu rek ku jégi fay mbuq nguur gi info yéene kaay mel ni ku naan Macky Sall nag faa ko jàqal Ablaye Wade PDS jóg na taxaw ngir xamal doxub ñaxtu boo xam ne réew mi koy def ngir ñaawlu ni Macky Sall yore réew mi tooxi doona yi fii xam kumba am nday ak kumba amul nday gi réew mi fa ñoo bëgg mu takk ndax lu ëpp tuuru info yéene kaay ne hé yëf yi nar naa garaaw de te tàng ci Macky Sall ak ñim xàndal ndax Wade génn na ca tekk tekkaralam ga enquête yéene kaay ne li tax mu oote doxu ñaxtu boobu bokk na ci fichier électoral bi mbind mi ci liste yi ba ci parrainage bi te mooy yéene kaay na PDS hubbi na yoonu xare wa Wade ak Macky Sall gañ daan ruumandaat naan jubóo nañoo Karim Wade dafay fekki Macky ak fi loolu moom jeex na tàkk kenn dootu ko fi waxati ndax Wade a ngi tàngal di xoote ñaxtu ngir jëlee fi Macky bokk na te la ñuy tamit li mu yi nga xam ne fañ koo wàññi ci liste nationale ñu ne déetewaay Ablaye Wade nee na Macky Sall fa tere lu ëpp benn million ndaw ñu bind ci liste yi ndax xam na ndaw yi moom waxuñ ci Macky Sall yaw seetal Macky Sall joxut gëdd ndaw yi APR yi du leen jox ay poste wala mu leen di dooleel ay paa yu màgget xobi daas ña judd woon ca atum balees ñoo ko wër ndaw yi yi ne nag fay dakk du dëgg du yoon ba ci wata député yi fa ñoo bëgg ñu def leen ci liste yi kaay bi na Macky xam nga lan moo ko nar a yoon li ñuy wax vote sanction maanaam waa APR ya bokk ca parti Macky Sall ba fa ñuy woteel kujje gi wala keneen romb fi Macky ci wata a dajale mboolem kujje gi ñu nekk benn ngir jëlee fi Macky ak nguuram gi 24 ma Macky Sall attention defal ndànk am na yoo xam ne bu ko def ci réew mi li ñuy wax ay sàcc woteeg yooyu bu mu fi xam Ousmane Sonko tamit teg ko loxo yooyu moom bu ko mës a xalaat Macky ndax réew mi duñ ko nangu le mandat yéene di ñu xamal ne Guy Marius Sagna Barthélémy Diaz jël na ko ma ngay liggéey ca biir cabinet ba mairie bu Ndakaaru gannaaw bu ñu waxee ne moom nguur gi fa ko dàqoon comme ni dàqee capitaine Touré ca gendarmerie a dàq askanu Sénégal fat leen taxaw leen jox leen liggéey na leen du ngeen moom si du quotidien mooy saaga wante huñ ñi wante sutura wax ju ñaaw yàq der gi xam ci réseaux sociaux yi Facebook ak TikTok ak yeneen yi ni mel yéen bi ne senegal moom fi mu toll ni fa ñoo yàqu ci réseaux sociaux yi te ay mbir yu garaaw rek moo fay xam Vox Populi feelu ko ne li ñu wax vi privée fi mu toll ni kenn amatul bàmmeelu biir fa ñuy xam sa secret weer la ci réseaux sociaux yi xam na ñoo xam ne sax fa ñuy wax lu du dëgg lépp ngir yàq sa der ci réseaux sociaux yi loolu baaxut laneen lu baaxut mooy jaay wàllu ngàndaay ci xanam yoon libération na waa dig ñu ñu teg loxo ca Parcelles Assainies ñu doon yëngatu ci wàllu wi tàggat yaram Boubacar Camara tànn na ngir football si Sénégal stade yéen a kaay na loolu lu baax la de ndax booy boobu nekk Marseille Camara fa aay fa mën a football fa taqe ki taqe nag ba jéggi dayoo mooy Sadio Mané fi mu toll nii record yéen a kaay nee na naa gigs ci ay dugal bi yu bëri journaliste yu bëri tubaab bi ne neen moom ballon d'or bi Sadio Mané ko war a jël li mu jël ci ay bii ci weer wi Edouard Mendy bëri na de léegi tey gars yi ko de fukki bii ak ñett ci ñeenti jongante record yéen a kaay ñu ko xamal xiidoona ya buntu ba ubbeeku na benn soxna daal fa xam jëkkër di sëy ak moom lu yàgg ñu dem ba mu yàgg daal ndaw sa bëgg jël këru jëkkër ja moomal ko boppam mu xam ne loolu nag mënta nekk lu dul jëkkër ja fa dee ci la toogee nag moom soxna si di ñaan yàlla jëkkëram ji gaaw a dee mu ñaan ba sonn yàlla faale wut ko mu ne léegi xaaral kon ma rayal ko sama bopp ci la deme ut ab pikir pikir ko jëkkër ja mu def ñaari ay bés rek faatu l'observateur na ndaw sa nag teg nañ ko loxo yóbbu ko ci kanam tribunal ko ma ne ah xalalu àdduna kër tax nga ray sa jëkkër xam nga wu ñaaw wudul fay ba àdduna tukki su ma doon yàlla faa laay bàyyi ba nga tëdd guddi ca kaw lal ba ma jël kër ga daana ko sa kaw su ko defee nga dee ba pare xay xeno la